muy ba muy nekk ci presse bi amaan na sax nag wax dëgg yàlla <laughs> juddoogu ma suñu suñu doyen la mais mais parfois non jàngal ma ko sax mais pour ñun ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñu nekk ci journalisme bi euh, ñu ciy bàyyi xel bu baax baax parce que xam nga bu fekkante ne da nga nekk ci benn métier jaara mm-hmm. à chaque fois da ngay da xool ñi nga xamante ne ñoo la fa jiitu nga jël leen def leen référence mais tey jii bu fekkante ne euh, gis nga ko mel ni ma euh, Madiambal Diagne mu nekk journaliste di jël ay mbir yoo xam ne du ko def yow bi nga xamante ne yaa nekk ndaw di def journalisme du la encouragé mm-hmm. te dafa am benn taxawaay boo xam te ne ñoom loolu la ñu war a taxawee parce que dama koy faral di wax à chaque fois boo ne journaliste la plupart du temps lu ñuy wax du waxkatu dëgg lan moo tax boo ne journaliste la ñu ne la doo wax këtu dëgg mais peut-être am na kenn ku nekk ci yéen koo xamante ne mu ngi def ay mbir yoo xam ne moom waru ko def. Mm-hmm. wala mu ngi jalgaati wala mu ngi jalgati sa métier bi jalgati boo xamante ne ku ko dégg du naw ñi nga xamante ne ñoo yor métier bi. Mm-hmm. moo tax damay faral di wax à chaque fois ñoom ñi nga xamante ne ñooñu ñooñu ñooñu féete mag nañuy jël yenn décision yi waaye itam nañuy xool bu baax a baax bu ñuy wax la ñuy wax. Mm-hmm. ndax tey jii bu fekkee ne da nga dem Europe. am na ci ay journalistes yoo xam ne ils sont engagés nëbbuñu ko carrément wan ne man fii laa faat mais tey jii yow nangoo woo fii nga faat mais yaa ngi jël ay mbir yu sew di ko def di jël ñi nga xamante ne beneen wet ga lañ foo lañ fare di leen sànni ay kàddu parce que mbir bu fekkante ne mbirum politique la rek garaawul parce que maître Bamba Cissé wax na ko nee na am na ay kàddu yoo xamante ne mu ngi koy yëkkati amul benn rapport ak li nga xamante ne moo di politique tey jii journaliste dafa war a nekk un influenceur un influenceur c'est-à-dire journaliste war nga nekk. gestion wu li nga xamante ne mooy gestion wu nguur gi war nga cee dox. Mhm. par exemple boo gisee ne ministre bi wala boo gisee ne suñu président bi mu ngi def ay njuuj njaaj wala mu ngi jalgati yow en tant que journaliste sa rôle mooy nga taxaw alerter sa rôle mooy nga taxaw ne li nga xamante ne mbir moom mu ngi am tey ji bu fekkente ne journaliste yëpp ñu ngi doon def noonu kon yaakaar naa waxuma la. nguur de mais képp koo xam te ne toog nga ci nguur doo xalaata jalgati mhm. parce que tey jii boo xalaatee ne su ma jalgatee wala su ma defee yenn su ma xëyee euh, honorable wala Ahmed Aïdara dina ma def revue de presse. Mhm. wala de ñëpp dinañ ko dégg. yow en tant que homme politique dina am ay mbir yu bëri yoo xam ne nii doo ko doxal donc pour man rôle journaliste warul nekk xaste warul nekk saaga warul nekk di intimider wala ngay dugg ci yenn mais rôle journaliste mooy nga dénoncer boo gisee lépp loo xam ne mu ngi mu ngi ñëw dal ci li nga xamante ne moo di kaw askan wi nga daal di koy def. Mhm. kan mooy Madiambal Madiambal mooy journaliste. mooy ki nga xamante ne ñu ngi koy toppee impôt et taxe ba léegi fayagu ko léegi kon tey jii da seet ne pour man d'une part ci benn logique la nekk dans la mesure où tey jii buñ ne ko ñiigtee dina mën a am fu mu jafandu pour justifier li nga xamante ne moo tax ñu jàpp ko mais ak lu mu ci mënti doon rek même bu dul ma jàmbal sax. mais yéen bu ngeen jotee ci mbirum politique nit mën ngeen a bañ mënoon ngeen mën ngeen a waroo ci li nga xamante ne moo di langue politique parce que fii lañ ko fekk kii dafay far fii kii far fii mm-hmm. mais bu mu tee booy def ay analyse wala booy def li nga xamante ne euh, moo di sa jàngat nga bañ koo jël di ko personnaliser typiquement di ko jëmale ci ki nga xamante ne moo nekk ak yow pour man jamono jamono jooju lañu la ñu toll je pense que muy politique muy journaliste war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a mm-hmm. voilà euh, professeur bi nga xamante ni amal nañ ko ni ki tey euh, ki nga ci ki nga xamante ni mooy Madiambal Diagne Madiambal Diagne suñu fàttali ko gis nañ livre bi nga xamante ni bind nañu ko ci euh, ci mbirum Sweet Beauté révélation yi mu ci def li nga xamante ni wax na ko ci donc mu yàgg a wane position bi nga xamante ni am na ko ci Ousmane Sonko euh, wane que ni àndut ak moom waaye jugul ci benn yoon di ko daal soo se nee na euh, jarul pour moom euh, jarul voilà mbir mi muy jël beneen tournure maanaam di perte le temps ki nga li nga ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ak gouvernement bi donc yow ban gis-gis nga ci am est-ce que wax nañu bàyyi benn journaliste boo xamante ne à chaque fois day def ay tweet di dal ci kaw gouvernement bi sans ñu traduire ci wàllu bi waaw euh, merci euh, soxna jaara man de li soose wax laa d'accord. Hmm. Euh, man bi bi muy commencé sax man ngi naan est que dina yegg foofu du fa yegg que ni nit ki amul dayoo boobu pour ñu koy topp walla ñu ne diw moo ko porter plainte di ko toppee nangam nit ki yeggul foofu xam nga wax nga ba tudd tweet demal ci page Twitter am nga xool. ñaata like la publication di am day nekk ay publication yoo xam ne sama genre bu ñu ci yemee sax du ñu jël seen temps wu lire parfois xam nga loolu lu ko waral soxna jaara je pense que nit am na lu mu war a gën a war a mën a sàqu lu dul réputation bu yàqu et malheureusement ma jàmbal dafa am loolu aux yeux de beaucoup de sénégalais du ma ne nag des sénégalais li ko waral mooy am nga taxawaay boo am jaara ku ci nekk am nga sañ-sañu far ku ci nekk am nga sañ-sañu jàppale ku la neex waaye dafa am loo xam ne ci jàppale ak ci far danga nga koo war a mën a jiital mooy lan mooy éthique mooy lan mooy déontologie mooy lan mooy élégance mais xam nga nga jàpp nit parce que foroog moom. di ko chargé matin midi soir soxna jaara nga jàpp ak nit parce que faroog moom lépp loo xam ci lu ñaaw nga wax ko soxna jaara nga xam nit parce que faroog moom yow ñu am luñ ko fi tuumaal nga bind ci livre ci coow loo xam ne képp kuy gor bi nga déggee coow li nga ni diw def na koom defu ko mais li warul tegu ci pénc mi mais yow nga dem ba am l'audace ne dangay bind livre pour lan xam taal bi pour lan parce que dafa am benn haine extrême lañ ko mën a tuddee bi nga am envers la personne. am na ay accusation yoo xam ne def na ko ci yow même bu dee nit ki bu doon nit ki sax moo def nga am yoo xam ne ca la mu def la nga wax ko sax yoon mën na la cee topp à plus forte raison nga am yoo xam ne. yow wax nga ko ci te mu nekk ay accusation te yenn ay nit wax ko parce que man ci li ma gëm livre du jar sax xam nga dafa am loo xam ne dafa rafet tey jii nii boo demee ci yenn civilisation yi dañ la naan yenn mbir yi waxaabulul nañ ko nëpp nëppal même bu dee lu bon la parce que Euh, non seulement dañuy jéem a sàmm nit ki rafetal image am mais dañuy jéem a sàmm nit ki en tant que nit warmaal doomu aadama parce que dañoo ni doomu aadama yàlla suñu borom sax moo ko njëkk a warmaal comment maintenant se fait-il yow benn raison nga am mooy haine envers la personne comme ma ko waxee nag li nga li nga li nga introduire léegi mooy multiple infraction maanaam def na defaat defaat defaat defaat bu ñu yeggee foofu lañ naan nag lu ëpp tuuru. man d'accord naa foofu ñu topp ko mais lañ ci cité ne Ousmane Sonko moo ko topp peut-être pour avocat am ñu topp ko mais euh, dayoo bi sax amu ko importance sax amu ko man j'aurais aimé mu dem ba offenser l'autorité publique l'autorité de l'État laa yoon def liggéeyam procureur autosaisir woo ko te xam naa ni buñ ko bàyyee fa lay jëm léegi nag il faut essayer de voir am na loo xam ne ñaa euh, am na loo xam ne explication bi sariwul le cas de Madiambal pour man ñaari raison la soit bopp bu bañ a sedd soit bëgg a anticiper sa dugub kaso